ñëw tey fi nga xam ne mooy kër Selbé euh, Amy Diop wante dañu fi fekk it euh, loo xam ne euh, mooy ay jumeaux yu kenn ki ñu tuddee ko Ousmane Sonko kenn ki ñu tuddee ko Imam ndaw yow yaay kilifa jumeaux yooyu. waaw ah, ah, eh, eh, asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu ñaan yàlla yal yàlla jéggal te sunu koor gi tamit yàlla na ko yàlla nangu. waaw ki ngeen si fekk si fii mooy sama rakk la nday ami waaw ma man maay eh, maay seen mag waaye yàlla dogal na nag comme ni nga ko waxee nii nag noonu la amee waaw fii moom dafa am ñaari seex yoo xam ni bi ñu juddoo kenn ki maa ngi ko tuddee eh, Seydina Ousmane eh, Sonko mu sell mi kenn ko Imam Alioune Badara yaakaar naa sax léegi ñu am huit huit mois yaakaar naa. léegi ñu am ko aw. choix bi ndaxte it tey bu amee ñu bëri Ousseynou ak Assane Adama ak wante boo ñëwee nag yow euh, def euh, Ousmane Sonko ak Imam Aliou ndaw lan moo motiver sa choix boobu. waaw teg ko si diine rek ndax lislaam tamit euh, li mu namm si kilifa gi daal mooy mu jox leen tur yu baax. ma mu jox leen tur yu am euh, njeexital ndaxte boo tuddee sa doom da ngay xool ñu ngi ko tuddante ñan la waxu mu nant jikkoy refet ak melokaan ak daal jikkoy daal moom leen jiital te loolu mooy suñu préférence euh, daal tax ñu xool ñoom ñaar ah ñu nekk nag nit ñoo xam ni vraiment jamono ji moom Sénégal kenn du waxati te tudd leen ndax seen taxawaay si réew mi ak seen euh, nekkaay daal si jamono ji daal su loolu daal moo tax tamit suñu tëddee ko te tamit euh, wax daal yàlla yàlla da ko dogal ndax bi soxna si euh, oh, oh, ah, kii wan na lor dama ko wax man ko ah incha allah de bu nga góor la Sonko laa ko te yàlla dogal nag fu muy ñaar ma ne ko comme eh, nga daje naag eh, imam eh, kii làqu gis naa ko tuddee ndax jamono yooyu ci ci la xale yi mhm. mu doon Sonko ak Macky Sall ndax tension politique bi am fii Sénégal. waaw euh, xëy na tension boobu ya yàlla nag fa yàlla yemale wax dëgg yàlla ndax si doon loo xam ne moom moom bu daal. jàmm rek mooy am si eh, eh, réew mi <laughs> mais ni nag boo ko tuddee doom te fekk mu nekk sa xol ndax tey ne su ma woon te Macky Sall ko tuddee ak Sonko xëy na am na yeneen gis-gis yu si am te fekk man li may wax nii dëggul ci man loolu tax man nag damay def loo xam ni moom laa gëm man ah, Sonko laa gëm moom laa bëgg kon nag xajuguma kenn ci moom bëgg a keneen ku ko rul Sonko ak Imam Alioune Badara mm-hmm. waaw Sonko ndax xam naa yëg na ko ndaxte am na ay autorité yu bëri yoo xam ne ñëw nañ fi mais maire ji aji de Thiaroye kaw yónnee na fi euh, Ahmed Aïdara déggoon naa kii monsieur doon wax am naa yaakaar daal ni yëg na ko xeewu ko yëpp ah, xamal ma importance li ma amal l'importance mooy ah, man sama gis-gis ak sama yëg-yëg ak sama bëgg moom laa topp ba tëddoo ko moom wax dëgg yàlla déedéet. ngay xaarandi bi nga xam ne mu ngi ñëw ak procès euh, appel bi moom ak Mame Mbaye Niang. ah xanaa ñu ñaan yàlla jàmm rek ndax euh, ndax procès bi moom ku ko gis nga xam ne nii seen taxawaay rek mooy éliminer xekku sell ki ndaxte ñun ko taxawalee ak ñun ko dëxëñee ak ñun ko nga gaawantoo ba nal ko atte sele di eh, eh, set loolu mooy jubluwaay bi mais leen bëgg yàlla bu ko yàlla dogal ci si ñoom ndaxte eh, vraiment kooku Mame Mbaye génnoon na ni kontaan na si atte bi sant Sénégal yëpp yaakaar naa ne bu bu tournoi waatee nii day def appel ko kon moom am na leneen lu ci namm ah, waaye nag ah, ah, yàlla daal <laughs> benn buur la am na <laughs> yaakaar daal si kii eh, bi justice bi dina dina teg mbir yi ci eh, kii ci yoon. en tout daal moom li ñu ñaan mooy sunu leader moom présenté wu waaw loolu daal leen koy ñaanal ah te aussi tamit te den ci taxaw nag taxaw mat sëkk ba loolu antu incha allah. ñu ngi ñaanal jumeaux yi euh, Sonko ak Imam ndaw ñu doon ay mag yu am daraja yàlla barkeel la. amiin amiin waaw waaw yàlla rek ndaxte eh, at mi yaakaar naa ni si tudd euh, Ousmane Sonko te du jeex am na ko ko xam sa jigéen la sa ñu tudd ko euh, Sonko ko kon xam nga yooyu ay cofeel la yoo xam ne am na si réew mi a ah, ñuy lancer appel rek te di wax président de la république Macky Sall mu mu mu delloo si euh, euh, xelam te xam ne njaboot gi yëpp ci njabootam lan yaa ngi dégg adduna euh, moom day jeex tôt ou tard day dem ba bàyyi fi réew mi kon nag dañuy ñaan ñi nga xam ni taxaw nan ngir jàppale Ousmane Sonko te tamit ñi Ousmane Sonko te du n'importe qui ñoo ko jàppale boo xoolee maanaam ay personnage bi ko war rek xam ne ñii ay nit ñu diñ leen te nit ñu bëgg Sénégal ay patriote ah, kon nag na may chance na xam ni moom dañ ko may chance population bi ànd ak moom tey population bi ki la jox bopp moo seet na Ousmane te na ko may jàmm organiser ay élection yoo xam ni moom sëtu ci bokk loolu daal fi mu toll nii dañ ko ñaan.